Jakarlok, xale bi nga xamanteni mo dajé won ak Bombardier ñoo ngi jàkkaarloog xale bi nga xamanteni yekini Yékini Senior la mujjee bëril fële ci stade Amadou bari dan ko avec la manière Tafatin, rew mi ngi lay nuyu biti rew fep fu doomu rew mi nek rek ñoo ngi lay nuyu bu baaxa baax dila la jox sa way ma ngi lay nuyu. assalamu alaykum mbolo mi ma ngi nuyu kep ku fi tew ci stade bi tay di leen jéeglu di leen wax mosu coono di sant yàlla julli ci yonent bi di gërëm suma ñaari waajur comme ni ma koy waxee di nuyu wa Bawol yëpp di nuyu képp kuy fan si Tapha ak képp ku teew ci stade bi ak ku fi teewul maa ngi nuyu ñëpp di nuyu képp kuy Bawol Bawol ak képp ku dib njàmbur njàmbur wala Saalum Saalum wala Kajoor Kajoor maa ngi nuyu ñëpp di kontaan ci ñëpp comme ni ma koy waxee maa ngi gërëm sama mbokk xalpulaar yi soose maninke manjaago ak joolaay ak suñu mbokki chrétiens yi aussi maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di nuyu senegal yëpp di ñaan jàmm si dëkk bi yal na dëkk bi estable mu bañ a am benn histoire waaw bu loolu weesoo nag ku ne xam na ne ci bés la ñu jëm ñun ñëpp te yaakaar naa ku ne xam na ne bés bi ñu jëm muy suma diggante ak Boy Niang mu nekk lamb ju mag jo xamne bu dàqul ci saison bi mën naa ne deuxième lay jël yalla nay lamb ji fi dàq te yalla may ñu ci ndam du non bu lolu weesoo nak maa ngi ñaawlu aussi li nga xamne mo xew passé estat muy diggante Papa so ak sita diko ñaawlu man amna vidéo yooyu duma ko seetaan parce que man daraay dion du duma ci dox Tapha bu ko xam

ku wax nawetaan da ngay wax làmb te actuellement nawetaan bi tëj nañu ko te lii xew nii buy ñaar di ñett ci ñun la jëm si te bu jëmee ci ñu rek du baax parce que làmb ji li ci yaakaar dafa bëri ñun mën nañu xëj na ñooy yi mais itam il faut ñuy sóoraale suñu xele yi ak suñu ginnaaw waaw bu loolu weesoo nag maa ngi sant sama mbokki lutteurs yi nga xam ne ñoom laa bokkal tund Bawol yëpp tey ku ne gis na booy tey ñoom ñëpp teew nañ fii comme na ma koy waxee ku ma ci lim rek yaa problème. waaye Tafa. ñoom ñëpp attends may ma rek ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm di kontaan ci ñoom Moussa Dioum laa ciy cité teg noyoo bi ci loxo mu tegal ma ko ci booy yëpp yaakaar naa ñun ñëpp mooy suñu grand fii kon foofu mot na bu loolu weesoo nag maay sant waa Médina aussi waa Fass Gueule Tapée Colobane Medina, Rebeuss Niathioker ak pompier nga xam ne ñoo seq zone bii ñu nekk ak Dakar Plateau bi aussi di sant aussi le maire Bamba Fall bi nekk fii di ko nuyu à passage waaw bu loolu weesoo aussi di sant aussi sama président écrit ñu koy wax Fallou Faye nga xam ne sànq ni mooy jël kaddu léegi ak Pap Cham, Pape Thiam suma xarit ñoom ñëpp nekk ci politicien ak Bada Bada ñi ñoom maire Djib Thiaw xam nga ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu ak Amet Dieye xam nga ñoo ñëpp sumay nit lañ ay ñoom Daouda Tine xam nga ñoom ñëpp maa ngi leen di yaakaar naa prési falu fay message bi jàllale na ko maître pap seen aussi maa ngi koy nuyu waroon na ñëw fii teew bu ndondol mais yaakaar naa yónnee na fi délégation quoi ñoom ñëpp ñu ngi pare combat bi wax dëgg yàlla seen ay soutien ñëw na sama tonton aussi Mor Ngom maa ngi koy nuyu di nuyu aussi Moustapha Cissé loo sama turando El Pistoro Lo maa ngi koy nuyu aussi ku may jàppale la wax dëgg yàlla ñoom siñoor Lo ñëpp maa ngi leen di nuyu aussi xam nga ak ñoom madame Mbacke bi ñu bokkal liggéey bi bu loolu weesoo aussi di nuyu suma asan Papa Thioune ak Elas nga xam ne tout le temps ñu ngi ci ginnaaw Tapha di liggéey ak moom waaw di santaat yàlla bu baax di gërëm wajur yi xam nga di nuyu mondu lam yépp ah di leen wax bismillahirrahmanirrahim ah rahmaani rahim kon ñu dem ci question yi wa légui Tafa tay dañu gis tay dañu gis nga am combat nga wo tundu bawal gep wo say mbokk wo ba wo responsable politique yi ñu gis ni da nga woté ba wo responsable politique yi bes bi mo nu tollu wala adversaire bi ngay dajel mo tollu nonu xam nga bés bes dañu koy fonk te man dama fonk bés te bés yu mel nii boo ciy dem dangay ànd ak say mbokk yëpp xere la quoi doo bàyyi benn nganaay te man lam ji mel na ni kuy doog a bëre grand combat ci stade bii laa bëre woon sama premier grand combat su may deuxième combat yëpp fii laa ko defee te lam ji mel na ni kuy doog a dóor te booy yi may liggéeyandoo ensemble xam nañ ci dara te balaa ngeen cee xam dara ñu egg ci bés bi incha allahu rabi yeah waa Tapha Tine léegi ñu gis ni bëri na ay combat yoo xamante ni bëri nga ko combat jàng bari fi ay combat yoo xamante ni sénégalais yi yëpp nangu nañ ni tu es grand champion waaye tey ndax xale bi ngay dajeel tey ndax xam nga ko xale bi ngay dajeel amateur yëpp nangu nañ ni xale bi ngay dajeel xeexkat la bërikat la est-ce que yaa ngi suuraale loolu ci combat non nothing talking about aw ma dara dara dara lu ma koy wax I am working night maa ngi liggéey anytime aw ma lu may tiit you know me big man yi nekk ci lam ji man Tapha Tine leen daan kon aw ma benn benn combat bu may jaaxal aw ma dara lu ma koy wax du noon adversaire la nag liggéey na boo yàlla may ko muy dajeeg Tapha bu bes ba xaar incha allahu rabi aw ma dara lu ma koy wax. est ce que yaa ngi xalaat est ce que yaa xalaat xeex bi ci Boy Niang ndax Tapha xale bi ngay dajeel yow leer na la ni xale bu ndaw la bokkul ak ñi nga daan dajeel ci ak li amateur yi wax dañ ne Boy Niang numéro 2 mi ngi doog a am combat ci ay combat am waaye Tapha tamit mi ngi doog a am combat est-ce que loolu yaa ngi koy yaa ngi koy bàyyi xel bu baax a baax. waaw même question bee ñëw rek. Mhm. loolu laa wax sànq. Mhm. ma ne la aw ma dara mhm. aw ma dara lu ma koy wax ko combat la moom xam na ne am naa combat daf ko signé ma signé ko man tam xam naa ne am naa combat. maa ngi pare mu ngi pare ñu ngi liggéey li ñu war a liggéey li ñu liggéey nag bu bees baax la ñu koy wone incha allahu rabi amul leneen. loolu la quoi seen combat dina am xeex yéen ñaar. non bëre door la ñu wax tey bëre simple bi yaa tout boo demee ci àll bi wala nga dem Grand Yoff yomb na quoi comprendre nga may nañu ñuy def bëre simple yëpp su may gaañ lañ xamoon mais li bëre door la ñu wax quoi. bëre door kon xeex. xeex nga fas yéene indil sa adversaire exemple doo bàyyi dara da ngay bëri di xeex quoi loolu la amul lenen da ngay beure di xex man nga ñu wax naka nga préparer combat bi est-ce que combat bi ni nga ko préparer ak ni nga doon préparer yenen combat yi ben la. mooy li ma la wax sank da mu melni kuy doga beure lan mo waral lool. ngir fonk guma fonk combat bi bougé wu ma fenn lépp fii laa ko liggéey lepp lu mu am Sénégal ci place yi la ko amé ci salle yi nek Sénégal la ko amé quoi amé wu ma ko feneen. sa adversaire mu mel ni combat bi da koo fonk lool ndax jóge na fi dem ba bitim réew. préparer combat bi. ci ni mu waree yaw nga ne fii nga toog di préparer combat waaw Sénégal Sénégal yaa tout ñam naa fee ñam naa fii ni ñuy pare combat kon xam naa nu ñuy pare combat nu ñuy pare combat moom kenn dootu ko wax tafaatin comprendre nga euh, yàggatul daal. dafa combat bi dafa mel ni da nga ko oyofal nag. mooy li ma la wax déggoo li ma xanaa. yow déggoo ma ba léegi de. ak ma dégg. dama mel ni kuy doog a bëre. premier combat ni ma ko fonke woon bii moo raw exactement léegi léegi yaa ngi jàk yaa ngi jàkkaarloog réew mi yaa ngi jàkkaarloog Boy ñaa numéro 2 man leer na ma ne mi ngi lay seetaan lan nga koy wax dama la lakk anglais léegi yow xam naa déggoo ma ba léegi ko aka ma laa dégg ndax exactement aw ma aka ma laa dégg ndax des the language mooy speak in the world aw ma aw ma dara aw ma aw ma dara lu ma koy wax aw ma dara lu ma koy wax adversaire la bu ma respecté nag parce que xam naa ne champion la moom kuma respecté la mais le jour ci lay xaar quoi inshallah allah ma ñeu def différence rek dem suma yo non dañu bëggon nga wax Boy ñaan lan nga koy indil ne ko préparer non awma ah? awma awma awma dara lu ma koy expliquer yeah. ah kon yóbbante woko dara. awma dara lu ma koy yóbbante. xalé bi bul faté ni day ak yow de ta amna na lu ma la wara a wax waaw waaw na arbitre bi sanni bantu 30 mètres rek jóge fof loolu rek la amul lu wax quoi. lima waxon duma ci dellu ginaaw buma ko né poussel dafa wara a dat clear hein yeah bu ma ko ne poussal dafa wara pouss lolou mo jaadu est ce que xam nga ni xalé bi ñi mu bëre ñëpp da leen yóbbu latéral defal leen affaire wa mais lolou bax lolou mo bax lolou affaire am la quoi man suma affaire moy ñew taxaw liggéey li mo wara won ko li ma liggéey is nothing jee na quoi léegi lan ngay wax réew mi ak ñalay waaw di sante yalla rek di ñaan ci réew mi ak dal quoi di waxat aussi li ñuy xew gis ci estat yi nañ ko moytu di ñaanal ñëpp jàmm ak salam lolo fi nek

bëre faak ki nga xam moy Abdou Diouf bëre faak tala Gaynde bëre faak Ama Balde mais défaite bobu aussi tamit say supporter bokku na ci lo xam ne nañ ko seen xel nga fay dugaat jëlaat benen xalé muy Boy ñang numéro 2 est-ce que xam nga day wo combat bi te aussi tamit pare nga pour rectifier wu tàggoog say supporter ndax défaite Ama Balde mooy li la wax sang rek Modou combat bi li ma jaral yeen mënu ngeen ko xam xam nga du ngeen ma gis yu bari quoi dama nek sama rokh di liggéey jàpp suma njàmbur parce que man xam naa ne am naa combat te respecté naa ko te combat laa am te maa ngi liggéey incha allahu rabi te bu ñu demee ca bes ba incha allahu rabi yàlla dina ma may ndam man loolu laa ñaan yàlla quoi yeah. Eh, Abou Ndour Abou Ndour suñu doo mi ngi nii moom moom nee na ah. mu nga wàññi. nee na da nga wàññi poids. non yéen loolu ngeen gis quoi mais man gisuma lool man moom damay liggéey topp sumay ay entraînement rek quoi. léegi ñu bàyyi la nga wax ak waaw waaw waaw di sant yàlla comme ñu koy waxee daal xam nga di sant képp ku fi mëndu lam ñëpp waaw Sakandé alias tax ci rip loolu dafa leer barki yonent bi. Eh, lu indi bi. waaw loolu sama géem la sama yëfi bopp la buñ cee yégee dinaa leen koy expliquer incha allah. Uh-huh. waxal waaw. dana coppe sa tànk laxasu sa ndigg bari na adversaire yu mu ko def daan leen est-ce que yaa ngi xaar loolu sa diggante ak moom bu ne coppe sa tànk laxasu sa ndigg la cay xew waaw man li ma liggéey laa gëm quoi du noonu li ma liggéey laa gëm moom la mu liggéey moom la engagé quoi mais man li may liggéey laa gëm quoi bu ñëwee xeex ak yow xeex samp jaaga xeex yow bëre dóor la ñu wax Tapha kenn du ko wax ci xeex wala boog leneen quoi leneen ngay wax waa la mais mooy li ma leen wax yéen du ngeen ma dégg tout le temps combat laa am damay préparer combat xam naa nu ñuy pare combat du dégg la weesu nag weesu na ko man li suma kanam laay xool nu mu ko lijjantee ni mu gën a gaawe ñu bàyyi la ma def différence dem suma yoon loolu la ko amul leneen. ñu bàyyi la nga wax waa Bawol ak waaw di sant waa Bawol yëpp ku ne xam na ne tey ñoom ñëpp teew nañu fii maa ngi leen di sant di leen gërëm ñoom ñëpp di rafetlu seen teewaay ñoom ñëpp tafaati nag équipe lañ équipe ñooy liggéey ak ñoom tey bu ma fi newoon di lim ay tour day compliqué comprendre nga li firndeel na ko tey ñoom Pape Thiam xam nga ñuy ñëw teew ñoom falu fay suma président écrit mën naa ne bawol gëpp fi teew quoi mm-hmm. kon loolu sant yàlla la quoi mm-hmm. yeah te bu bees ba di ngeen gis lu garaaw incha allah mobilisation Pikine nga jëm Pikine Pikine mobilisation bi yeah waaw foofu moo baax Pikine moo baax yeah foofu moo baax moom laa moom laa leen wax moom laa leen wax ma ne leen man sama fan si club bi gën a mag mu ngi buntu Pikine du ñu jël car du ñu jël cette place dañuy dox dem quoi ah. yeah buntu bi gën mooy fan Pàccu waaw waaw waaw. nga woote. waaw waaw bu loolu weesoo nag di sant sama mbokki promoteurs yi ñoom Dieye Sène di sant aussi xam nga ñoom Assane Ndiaye tout ñoom falu njaay comprendre nga Pape Abdou Fall ñoom Gasson ñoom xam nga yi ne ci lamb ji ñoom Daouda xam nga di sant aussi Daouda automobile sama copain maa ngi koy gërëm wax dëgg yàlla. ak ñoom Tafatine bu kër njaayloo ñëpp ñu ngi tey ci stade bi mais dañoo laxatu ñoom cuun papa cuun hélas ñoom ñëpp xam nga waa ñoom Bamba ñoom di sant aussi suma fan si club bi Ilimane jël nuyoo bi teg ko ci loxo mu tegal ma ko ci waa groupe yëpp kon loolu leer na ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñapp daal en tout cas.